mu neex nit ñi. Eh. ndeysaan tonton Liba tur bu la. Mm. loolu naa si ñëw ci histoire après. mais nii nii nii teg ngeen eh. bëgg moom da kaa bëgg ree nii. da nga bëgg ree. ay da naa di wax yenn yi ci kanam. <laughs> rus naa ay dara nag su paasal am na lu ma nettali woon ci ñaar ñu doon wujje mm. xam nga wujje dafa garaaw waaw as ma wujje mm. dafa mm-hmm. dafa takk ñaareel maa ko fekkee nag suñu ko la xewee bugguma wax turu waa ji <laughs> bi mu takkee ñaareel mhm. comme yéen ñi dangeen a xew tendance yi greffage yi perruque yi <laughs> ñaareel bi aye mhm. bi mu xëyee suba gi sangu jël peñeem di peñe greffage am di defaru pare jël peñe bi karaw yi noonu si peñe bi daal di koy dindi def ko ci mbuus ñëw romb aaw bi def ko ci mbalit bi xam nga aaw yi dañoo ñeme sëriñ ci ay <laughs> aaw bi jug ibi mbalit bi xool ne ni yëkkati tijji mbuus bi génnee muy karaw mu defaat ko sànni nekk jëkkër jàng ci duus bi di sangu. Hmm. mu takk ndigam taxaw di xaar jëkkër ji mu génn. jëkkër ji mu ne ko yaa ñàkk jom. amoo looy jom. 30 ans de mariage laa wat xale bu ñëw ñu barki démb ubbi la di la wat yaa ñàkk jom. nga ko def. jëkkër ji maax ji wax ji dindi serve ne ko kan lañu wat. <laughs> kan kan kan lañu wat fii. Assane boobu doy na waar di. munoo kenn mu ne waat ni toj dem yoonam. aywa kër dégg nga. en dañoo jógee. dañoo jógee ñaareel bi goon ci guddi gi mu dem jëndi rasoir. ñëw nag ne day wat. ah xam yaa ko ah de xaw ma. <laughs> la ilaha illallah. asmaa lan wat <laughs> ma changé jour ma jour parce que yi daal. am naa kersi na. en tout cas am na solo am na solo lool Pape Assane ah c'est bien charmant téléspectateur de démarrer avec autant euh, de de de de bonnes ondes de des ondes positives loolu lañ leen di apporter tonton Libas en compagnie ah. merci beaucoup. waaw WhatsApp ah gis naa ko waaye dañuy daal di dem jëli suñu éphéméride ñu tàmbale. aywa alors tey la le 15 juillet 2020 dama lay yóbboo ba le 15 juillet 1841 mu nekkoon la première exportation à titre d'essai par des maisons marseillaises de 500 kilogrammes d'arachide du Sénégal tubaab bi fa lañ ko tàmbale woon boobu ba tey may ñu jàmm. yàlla ñu yàlla dool sutura. allahumma amiin yàlla ñu yàlla dool sutura. amiin yaa rabbi yàlla yàlla na yàlla def Sénégal génn ci gépp yee bii. amiin yaa rabbi 1841. ngi ci 2020. ñaari siècle ci ginnaaw. Mhm. bari na de. mais ñaari siècle est-ce que xam nga ni ñaari siècle yooyu. Mhm. da ci yokk yeneen yeneen yeneen ñaar ba ñett quatre cents ans. d'exploitation d'esclavage de tout ce nga teg ci ñaari lii nag lii lii Sénégal dañu war a xam ne ñi lii tubaab moo ñu ko defloo arachide bii tubaab moo ñu ko moo ñu ko moo ñu ko jëmbatloo parce que moom daf ko soxla woon moom comme moom parce que tubaab lépp lu mu soxla woon te mënu ko woon am bërëbam da ko doon jëlee feneen feneen fi mu ko doon jëlee ñun ñi dañ cee am wàll boo xam ñun ñun ñooy dundal tubaab yi depuis depuis ñoom ñu def seen conquête wër àdduna bi ñëw Afrique bi ñëwee Afrique dañ ne yàlla dikk na yàlla dikk na moo tax fi mu nii. Mhm. africain yu bëri yeewu nañu seen population yi. effectivement dina dem nag dans le temps kenn xamul kañ la. Mhm. mais pour tubaab bàyyi ñu dem génn dañ daal ñii partenariat. dina jafe trop parce que lii nga expliqué ni. Mhm. arachide bi ñoom dañ ko doon jaarale ci côte yi. ci bateau yi yóbbuwaat seen dëkk. defar transformé tas ci àdduna bi defar seen koom seen économie ñëwaat encore joxaat ñu si. mooy diw bi. après nag ci lañ dem nag ba benn moment ñu daal di centraliser sampal ñu SIB sampal ñu SIB bi Sonacos tey et mais tubaab moom yàgg nañu exploité te ndeysaan daf ñuy use intelligemment ñun nag gerte bi ak ceeb bi tubaab bi daf ñu ko gëmloo imposé gëmloo mhm. gëmloo ñu ko imposé ñu ko Sénégal dañu war a bàyyi xel benn affaire hmm. lan moo tax tubaab dañu lekkloo ceeb te ñoom ayuñu ci ceeb lu tubaab bi ñu lekk ceeb te moom ayul ci ceeb comme li nga wax. moom ayul ci ceeb. xam nga lu tax bi dafa am suukar no hmm. waaw. bi su bëree. Hmm. nit ñi dañuy feebar no bu hmm. dañuy dem pharmacie no dañuy seen garab no <laughs> doxal seen économie. tubaab dafa ñaw donc échelonnement boo xamante ni daf leen di permettre seen lépp engrenage bu positif dans le sens vers vers eux. léegi ñun sunu maam yi avant tubaab di ñëw di ñu imposer ceeb ak arachide et cetera mais sunu maam yi dugub lañ daan lekk. ndeysaan bi sunu maam yi dañoo dëgëroon. waaw dañoo guddoon fan. amoon waaw. la il faut se poser la question lu tax sunu maam yi bu njëkk. Hasma uh-huh. yàlla oh. Say Sayda Cherif Baba euh, tonton Libas. Roqeya Roqeya. Mabba ak MD mm-hmm. ak euh, ñi seetaan ak ñëpp ak Saliou mais tubaab. tubaab dafa doy waar xasma tubaab yàlla may na ko. <laughs> c'est-à-dire que ils ont fait de sorte que nous on va toujours être dans le besoin. dans le besoin de. de c'est-à-dire que le blanc nous apprend à comment croire en ce qu'il fait mais pas à savoir ce qu'il fait. justement. en tout cas daal tubaab bi daal moom duñ ko wàcc benn yoon ndax moom fas yéene. ñu ko wàcc benn yoon est maam yi daaw leen vacciner. lu tax sunu maam yi daaw ñu leen vacciné. te ñu guddoon fan lool ñu gudd fan lool lu tax ñun ñu ñuy vacciné rek ñu feebar yi bare. je le dis en dañoo amoon garabu niim dañoo te di def jëfandikoo li nga xamante ne seen réew lay sax seen suuf. wallaahi doy na waar kon nag nañ delloo buum ci booy booy ga Pape Assane Seck ñun ndaw yi ñun ñoo mën a soppi li nga xamante ni moom la tubaab bi xaw a gagné. 15 euh, juillet la ñuy desandi waaye bi pas 2005 ma fàttali leen euh, mu nekkoon bés bi nga xamante ni ci lañ amaloon arrestation de Idrissa Seck dans l'affaire dite des chantiers de Thiès la ville euh, dont il est le il était le maire. et pourtant defaroon na ko de. defaroon na ko ba mu rafet yàlla ku ku bu ñu waxalee bu ñu dindee lépp. tey nag dinaa benn affaire boo xamante ni mën na mën na mën na déranger. Thiès a euh, une belle région. il Idrissa Seck ak lu ñu ko mënti reprocher wax ci mbir mi du dañ ko mujjee setal. waaw. Ah. dañ ko mujjee setal. tout à fait. kon dañ ko monté loon pièce puzzle complot ku monté woon complot ba kenn xamul wante président Ablaye Wade dem na ba si jëmmi jamono. ñu jaxase kook Idrissa Seck ki nga xamante ni moom la ñëpp jàppoon ne moo kaa wuutu. Mhm. ndeysaan. xam nga dugg si diggante nit. jaxase ruube ak bëri jaxase Idrissa Seck ñu ngi commencé ak moom ci période bi ñu bi ñu fi ñu njëkk a awee nag xam nga doom dafa sës ci baay. waaw mhm. ak wayjur. lii Sénégal yëpp nañ ko xamee noonu ñu ngi ko jaare ci ci Karim Meïssa Wade. dëgg la ndeysaan. ñu bu ñu fàttalikoo si jamono diggante mille 2004 ñu naan. Euh, ñenn ñi naan ci information Karim Meïssa Wade dafa dafa bett Idrissa Seck muy xool certificat médical président Ablaye Wade info boobu génnoon na fi ci temps maa ngi fàttaliku la la première sorti officielle entretien presse de Karim Meïssa Wade mu ngi ko defoon ak journal suma ma juumul l'actuel bii journal la yoroon. si jamono boobu xasma Karim euh, euh, Idriss Seck amoon na doole Sénégal wax dëgg yàlla nekk nekk le second mm-hmm. Mm-hmm. wante jaxase baaxul mm-hmm. dem na dem na ñuy commencé di def problème di ko créer ka doon ruube nag ña doon ruube ah. ka doon ruube ña doon ruube ah. wax ak dégg ka doon ruubeeg ña doon ruube ah. ka doon ruubeeg ña doon ruube mi ngi noonu daal fa nga yem ngi noonu nag moo tax nag euh, lii ñii naan dëgg rek kay te mooy mujj. moo tax it setal nañ ko wecc te pap moom juboon ak papam. juboon ak moom kon nag ñi doon ruube ka doon ruube. lu bari yàqu na. malheureusement euh, Idrissa qui avait qui avait remplacé Mame Madior Boye ginnaaw bi suñu papa Moustapha Niasse nekkee PM mais après Idrissa il y a eu l'actuel président de la République Sénégal président nu ngi laa nuyu bu baax. mi ngi ñuy seetal président Macky Sall voilà nu <laughs> moom moom mooy wuutu Idrissa Seck. ci place bi. ndeysaan 15 euh, juillet 2019 ñu mu tëjee ko rek ak li nga xamante ni mooy euh, fàttali naqar tiis suñu pape euh, à Bordeaux en France à l'âge de 72 ans suñu pape Ousmane Tanor Dieng daal di wàcc liggéey mu nekkoon ancien ministre d'État premier secrétaire du Parti socialiste et président du Haut Conseil des collectivités territoriales. am un an. bilaay ndeysaan. Hmm. affaire ah, yi gaaw na ah. ñuy wax ah, ne sunu kilifa bi dafa dafa wuy ji ñu ngi ka ñaanal yàlla ba baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax euh, kilifa bu mag la woon énigmatique euh, ku ku ku ku nëbbu. ndeysaan ñu bëri xamuñu woon ni euh, daanaka ceinture noire la woon. ndeysaan. ñu bëri xamuñu woon ni voilà sunu kii kilifa bi Yatmalou. doon na liggéey ak moom lu bare donc euh, voilà des gens yu nga xamante ni bi nga leen gis ñi doo xam kilifa yi nag aussi bari na si ñoo xam ni muy kilifa diine di kilifa kilifa yi ne ci. aada xel bi ci état bi. ñu si bëri bëri na si ñoo xamante ni aussi dañuy def arts martiaux loolu na si ñëpp. bàyyi xel waaw ah sa sécurité kat sa donc self défense. Mhm. mais mais ñu ngi ka ñaanal yàlla mu nekkoon le ministre d' état fort. temps de Diouf. dëgg ñëpp jàppoon sax ni Ousmane Tanor moo doon diriger Sénégal. ndeysaan si jamono parce que amoon na amoon na doole ñuy ngi fàttaliku benn waxtaan. Mhm. sunu papa bi euh, ñu ñu koy nettali euh, off the record. Mhm. Euh, bu fekkee noonu la demee woon waxi suuf. ñu ne ñu euh, sunu euh, président bi abu Diouf bu toogaan nag sunu pap bi Mansour Mbaye pap nu ngi laa nuyu. bu demeewul nii rek baal ñu ni ñu ko déggee. Mm-hmm. ñu ne euh, sunu papa bi Mansour sunu kilifa bi bu daan dem ba président Diouf war ko gis gis daal. Mm-hmm. gis. ah gis. gis waaw gis boobu. maanaam kilifa yi teraanga. dañ daan gisante paasan ñu ne ñu ko naan. dañ waaw ñu ne sunu papa bi Mansour. <laughs> Uh-huh. dafa doon wax président Abdou Diouf ne ko bàyyi ma ak rek. ndeysaan ah, dafa mënoon joxe. loolu aussi baax na ñu wax ko yàlla na yàlla xare ka aljana. jàngal bi nga ci am mooy paasan mooy mhm. àdduna. Mhm. nit mu noo wax wax wax ba wërsëgu asma ma am ko. dëgg la na doon président ba sonn amu ko. dëgg kawar doon nguur. Ah. rek kay am ngalla bu la ca tegee na nga ca def lu rafet. ay waay. wallaay Libaas mii bari na ruq yaa ma neex. àdduna en tout cas Papa Sane voilà boo nekkoon suñu ay éphéméride du jour. Mm. encore une fois ñu renouveler rek suñu ay condoléances ah. Sénégal yëpp ba ci ñun ñi ñu tàmbale mm. ko ci suñu bopp. ndaxte ñàkk kilifa gu mel nii yaakaar naa ni lii des rek mooy ñu roy ci jëfam ju rafet euh, bu ko defee rek ñi bëgg nekk homme d'état je pense que c'est un excellent repère. Euh, pour euh, ndaw yi nga xamante ni au moins à partir de lui on dira que on a de l'espoir par rapport à suñu doom yi bu ñu bëggee nekk ay politiciens. pour pour li nga wax njeexital gi ginnaaw bi mu amee jafe-jafe ci biir parti socialiste ak ñoom xalifa et cetera bu mujj bi la dernier message bu ñu dégg mu ñu ne wax na ko moo doon da doon woote pour ñu retrouvaille pour ñu jubóo voilà pour jàmmoo bennoo nit nag li gën a rafet ci moom la ñuy téye mhm. donc wootee boobu tey symbolique la bu fort bu mhm. fort boo xamante ni mun nañ ci sukkandu pour wax ne Sénégal ginnaaw woote boobu sax Sénégal ci boppam da dañu war a ànd doon benn rafetal effectivement justement ci naka noonu nag li ñuy jugee rek ci suñu ay éphéméride ñu dem actualité Papa Sane Seck ñu daal di ko dellu kàddu gi bu ko defee mu faram fàcceel ñu li nga xamante ne moom moo lëmbee réew mi ci jamono ji. alors Papa Sane tey la le 15 juillet comme ni ñu ko fàttali woon ci suñu ay éphéméride tey jii le transport aérien yi di reprendre euh, seen ay vol mm-hmm. alors euh, vol commercial et touristique. Mm-hmm. vol commercial et touristique euh, surtout le fait que euh, le premier vol bi war a tàmbali mooy Air Algérie euh, ni ñu ko waxee euh, bu nee la quinze nag tey la le quinze bu ñu le quinze nañ bàyyi xel ni vol yi tàmbali na depuis. démb ci minuit. Ah, ci guddi euh, affaire yi commencé wàcc. man leen rek laa si bëgg a wax wax dëgg fa yàlla sénégalais yi buggoon tukki bare nanu parce que soxla yi soxla yi dafa bare. Mhm. sénégalais yi bëggoon mhm. ñëw it bare nañu. étranger yi bëggoon ñëw it bare nañu. étranger yi bëggoon tamit ñenn ñi nga xamante ni peut-être seen yenn dëkk yi jël si wuñu leen wul leen woon te bëgg a dellu bare nañu. sur le plan économique bare na liñ ci mën a liñ ci ñàkk te war ko retrouver baax na ginnaaw bi président bi waxee bu yàggul ne dañuy ubbiwaat et cetera déconfiné lenn rek moom a xaw a jaaxal. mooy bi ñu waxee ne Union européenne dafa ne ñun du ñu dugg ci seen dëkk yi te après ñu delluwaat gannaaw <laughs> il faut ñu bàyyi xel ne delluwaat gannaaw bi ñoom ñoo ci gën a am intérêt que ñun am nañu d'accord ak ñun nag ci li ñuy wax ni parce que jot nañ ci waxtaan sax ak kilifa mu ne non non non tu n'as pas compris xam ñun nag ñun tamit dañu limité aussi mais dañuy xalaat non non non tu n'as pas compris tu n'as pas compris Passane tu n'as pas compris il faut comprendre que il y a qui déterminent et prédéterminent surtout, qui font que nous ne pouvons pas ne pas nous accorder avec l'Union européenne. D'accord. MD, d'accord. <laughs> Merci pour les images. Avion, il maquille, il Sénégal, mhm. D'accord que nous, nous avons intérêt. ci moment bi sur le plan socio-économique vu xaalis bi dugg di dem et cetera que européens yi di wàcc Sénégal ñuy dem di dugg d'accord mais ñu répéter quand on parlait de révolution corona c'était dans le sens d'une rupture drastique vu la pandémie que nous subissons mooy que jusqu'à présent on est dans le système bi nga xamante ni ñun ba tey ba sànq suñu kilifa yi dañu dañu dañu nangu ànd ci li doon wëy wëy xamu na dégg ngeen ma li doon am continuer am alors que pourtant li doon am war nañ mën a trouver prétexte su dagg ko mooy que ah non non non vous campez sur votre position nous campons mais bon dina jafe parce que dañ ñëw tënk. dafa am ku ñu téye ku ñuy fonctionner loo ku ñu naan def leen néeg néeg naa mais foog population yi comprendre ne que nous avons eu l'opportunité un temps soit peu moindre de poser des conditions. on n'a pas pu parce que tubaab aussi dafa muus gis nga dès lors sénégalais yi africains yi commencé ñu ñu ne réciprocité africains yi sénégalais yi commencé daal way ah ñu dégg suñu mbokk ivoiriens yi ñenn nga xamante ay ivoiriens ñu ivoiriens congolais et cetera naan ah bravo au Sénégal. Mm-hmm. oui c' est comme ça qu'il faut faire avec cette France là c' est comme ça qu'il faut faire avec l'Union européenne il faut ngeen lànk ngeen bañ et cetera tubaab yi sentir ne. tànn fatal ay ni mm-hmm. il faut pas ñu may leen temps de réflexion. bu ñu réfléchiree. yeew day day gën a compliqué donc bu leen may sax chance am buntu ne way maintenant non. tubaab bi daal di ne flexible rek daal ne bon ok les gars c'est pas grave il y a eu incompréhension nangam nangam nangam ils nous diront c'est pas cela d'accord mais dans le fond il faut que population yi comprendre que maintenant dem Europe dem Union européenne am visa Schengen. du fait en soi. du loo xam nit bi daf cee war a tënku bàyyi force. tey en soi mooy réussite du réussite du succès. voilà du du succès. du succès. Euh, génne passeport bi waay man. dem naa Paris. Euh. loolu xam nga luy succès <laughs> xam nga luy succès. defar Sénégal ba tubaab bi di fàq. te yàlla defal nañu ko. parce que tubaab baa ngi fex amul sago fi mu ne nii. Mm-hmm. ñun ñu ngi doon wax sunu taux de réussite ci baccalauréat su bii di ñëw ak entrée en sixième la ca topp. xam bi ñaata la am keroog 91 virgule 5 pour cent laa fi wax. Hmm. bi ñu jàllee ci seen euro yi ñu ngi à plus de 95 pour cent ñoom xam ñu ngi defaru ñu ngi organiser wu. Hmm. waaye léegi du ñu pes suñu bopp tuuti. yeew ñu taxaw. Hmm. demu Europe beeg yëpp na Sénégalais yi surtout Sénégal fii ñu nekk Sénégal comprendre que nous avons les plus grandes opportunités du monde.